هذا كونت لا اميتو آه، فاري نو نو نو نو برنا صاف <laughs> كوم نا خار بي رك <laughs> امام امام ني واج دينا دا يوخ بوتال ني سورال ني تامل ني سو بر رابو من يعصي <laughs> مولدا طيب ترى يا احمد فتى الشعيد شيدا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 sadit lisaani naari janaani safi amaani wasit baraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe Mouhamed Bachir Cissé Baye Fallou Cheikh Aziz Abo moo dellusiwaat ak yéen ci émission waajal gàmm ah, mu mel ni nag mooy niñ leen ko diggee woon rek ah, tey ji ñu war a ànd ak waa axlu laayen waa kër Seydina Limaamu Laay alayhi salaatu wasalaam ah, ndeysaan waaye di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi jàkkaarloog télé bi ci biir réew mi ak di ko wër yëpp di ñaan li nuyoo lamboo ci xew xéwal ki ngëneel yëpp yàlla nekk ci yéen ak ñun barke Cheikh na Ahmad al Khadim waaye di jiital ci nuyoo bi nag Cheikh Mountakha Bachir di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te mbir yàlla na dund kéemtaanu dund barke Cheikh na Ahmad al waaye jàmbaaram ji Baye Fallam bi sëñ Modou Moustapha moom Serigne Modou Mbenda di ñaan suñu borom yàggal ko fi ak mbooleem kër Cheikh si yëpp waaye képp koo xam ne rek da ngaa sol dàllub lislaam di ci dox ay jéego ñoo ngi ñaan suñu borom defal la ci ndam jàppale la ci katanal la te yagal la waye suñu xalifu généraux yep di len xare bu baax baax eh, ndaysan seigne Makhtar lay di ñaan sun borom yagal ko fi lol tam wer eh, tay ji nak ñu am ay gan yu tedd eh, ndaysan ni ma ko waxee léegi waa axlu laayeen ndeysaan ñu wara andandok manam jambar ku meuna tuddu yalla di sëriñ libas lay. di ko xamne ne sunu wëllëre la sunu xarit la te it xamna ne taxawayam ci axlu laayen bu tàmbalee dinañ ci xam dara euh, waaye ba tey tamit euh, ndeysaan euh, sëñ max mu dan ndeysaan Mandiaye Cawlaay ndeysaan sëñ Mouhadda Mouhaddam Mandiaye Cawlaay ndeysaan war ñoo taxawee ci wàllu waxtaan wi leeral ñu kan mooy Baye waaye leeral ñu famille yu bàyyi laay dëgg-dëgg seen taxawaay ci toolub l'islam bi waaye nag ndeysaan woote ba appel ba ak gàmm gi ñu jëm ak yëpp incha allah dinañ ko waxtaanee waaye nag ba tey euh, mu gunge leen ndeysaan euh, sunu soppe sunu xarit soxna Fat Ndiaye Mbay ndeysaan nga xam ne sant wi rek ko yàq Eh, ndeysaan di ko siyaar baax di ñaan suñu borom defal ko tawféex moom moomit nag muy jàngkat ndeysaan waaye ba tey sëñ Abdoulaye Samb moom it sant yu xaw a doy waar nga xam ne tey moom ay mbayeen ak ay sàmbeen ñoo ma dar waaye nag di ñaan rek suñu borom def tawféex ndax lii moo rafetal Sénégal waaye lii moo ko neexal lii moo neexal dëkkin yi kon xam naa eh, maanaam mu xaddam Mandiaye Thiaw Laye nga nuyoog mbokki taalibe yi ñu soog a jàll micro baa ngi tàkk bisimilah eh, wala mu xool mel ni xam naa ñu gën la koo kiyal rek waaw bismillahi rahmani rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهله عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نجي دلو دي من موندو اسلام دي سي جيتال سيدنا دودو مختار لاي أيده الله نصره واتله البقاء دي كتاك رقم جي تاد سونو سيدنا محمد الامين ابن سيدنا ابو بكر yàlla yokk ko doole baatin tawfiix taysiir ak i rakkam mboole seen di ñaanal saaba seydina limaamu laahi alayhi salaam fuñ man ne sallallahu yàlla doole leen doole jaamu yàlla aar leen yiir leen waaye fàttewuñ ci nit xalif général des sunu xalifa yàlla yokk ko moom tamit ak taysiir al muxtaar defal ko ndam di ñaanal tamit kilifa gi nga xam ne mooy jëwriñ ci Ndakaaro e yàlla yokk ko ndam moo tamit dafa ko sutura del soit di nuyu sama gaa ñi toog leen ziyaara lay muudu maxtaar rafet la émission bi lool isaakumullah euh, macha allah sëriñ Mandiaye Thiaw Laye ndeysaan di la kontaane waat bu baax euh, nuyoo bi am solo lool xam naa nag buñ duggee ci waxtaan yi mu gën a yaatu incha allah Euh, waaye ba tey euh, maanaam di siyaare bu baax Alaaji Mbàkke Fay jëwrinu Ndakaaru ak li ko wër yi euh, nga xam ne yàlla dogal na moom la Serigne Touba teg fii ci Ndakaaru waaye nag équipe technique bi nga xam ne yàlla boole nañoo ak ñoom Baye Cheikh Balla Samb ndeysaan Serigne Mbàkke Mbóoj waaye sëñ Pape Diène Ndiaye DG Euh, ndeysaan sëñ foode Wage euh, sunu yaay Ndey Ndiaye Abdou Diouf mi nga xam ne moo nekk te ci régie bi euh, Abdou mu ndaw ci caméraman yi waaye jëwriñu caméraman maani Pape Cheikh Bey di leen char bu baax baax di ñaan suñu borom yokk leen jàmm ak tawféex sëñ Libaas ñu war a dugg ci liggéey bi waaye may sàkku rek yow maanaam sa nuyoo maanaam doon tur yàlla wala xasida wala looy mën a yëkkati rek ndax olof Ndiaye day wax ne lawbe moo neex a jàngali peel te saxaar bu jubee gaar day korne kon looy nuyoog mbokki taalibe yi laa ilaaha illallaah laa ilaaha laa ilaaha illallaah illallaahu la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah intiha la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah intihal kalam ji wax ju ku ko sàlloo ajana di sa lay lay lala ku ko sàlloo ajana di sa ba moo tax limaamul ma diyu naa baril zikar ndax ku gëm day funk batamba ولا يقول لسانه اسمه فوق بلا لا اله الا الله انتهى الكلام لفظ سهادتي و taxwal ilahi wa taw idun fayuri sukhay xayrullaay wa niame barik tudd yàlla gën ci mboolem lu ñuy saxoo wala zikru laay a ye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

la ilaha illallah Allahu la ilaha illallah la la ilaha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 rabbul jalil allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah rabbul jalil allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah الا जले अलाह لا भुले الا भुलाई rabbul jalal allahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah rabbul jalal allahu la ilaha illallah la ilaha illallah rabbi la ilaha illallah antal karim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 xayru xalqi laay bay laay nga jàmmalaay waa walaay nun gëm nanoo yéen laay fili wër nanoo wër nanoo xayru xalqi waa walaay nun gëm nanoo xayru xalqi nga jàmmalaay billaahi nun gëm nanoo te lii xayru xalqi laa ya nga jàmmalaay nga jàmmalaay billaahi jëm ya

lay lay la la lay lay la la maam lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la la maam lay lay la la lay lay la la lay lay la la لا لا لا لا علي الله الله الله ربي محمد نبي لا إله إلا الله الله ربي ربي محمد نبي لا إله إله لا الله الله الله ربي محمد نبي لا إله إلا الله ربي ربي محمد نبي لا إله إلا الله ذي الملك بر لا جبار هدى لا لا يا البوري جميع لا لا يا لا لا على ذي الملك بر لا جبار هدى لا يا البوري جميع لا لا لا ilaha illallah muhammadu rasulullah gërëwaay moom solo lool nga nuyoo mbokki taalibe yi waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di dooree suñuy kàddu ci bismillahi rahmaani rahim la xawla wala quwata illa billahi al aliyil azim sant yàlla julli ci bàyyi laay alayhi salaam di ñaan seydina limaamul mahdiyu yàlla na suñu muur noonu lañ koy ñaane mag ñi ci réew mi yëpp yàlla nañ leen muurloo ndax ño fi nekkaloon diine ji wax dëgg yàlla ba dara ñaawul xanaa di ñaan sa borom ba yàggal fi suñu xalifa duudu maxtaar ibnu sayidina ma njoon mboo njabootu baylaay gi yépp ci góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi di ko ñaanal mboolem ahlulaahi di ñaanal mbokk yi ñu àndal lay maxtaar mu xaddam caw di ñaan njabootu baylaay yal na yàlla defal leen tawféex di ko ñaanal njabootu këru diine yépp Touba Tiwaawan Njaasaan fu taalub diine nekk rek nu ñuy ñaanale Duudu Maxtaar noonu lañ leen di ñaanale yàlla defal leen tawféex bi jaay bay lay alayhi salaam di ñaan sa borom ba njabootug Serigne Mamour gi nga xam ni ñun fa la ñu bawoo di ngaa xam euh, Baye Seydi Jaxate di xalifa ba Seydina Omar nekkal ko fa ñu ngi leen di ñaanal fa seen waajur woon nekkoon tegoon fa tànkam ñuy wéyal liggéey boobu yàlla nañ teeri ci kanam Seydina Limaamu ak mbollem njabootu serigne Mamour gi yep di ñaanal suñu wajur wa fa nek di mam Ada Samb di ñaanal suñu wajur yi nga xamni mom moñu tété won ci lital li mo nekkon bëgg-bëggam yalla doli ko ay leer di ñaanal nga xam yep di ñaanal jamm gën gi ñu nek nak wax dëgg yalla di e, ñaanal ki fa représenté xalifa bi muy Baye isa yalla dolel ko mok président mam dam ak e, soxna mantoulay mi nga xamni ne la ci Baye libas ñang waaw ñooñ dañuy yóbbaale ñëpp ak Seydina Diagne mi nga xam ni mooy euh, kilifa ak daayira bi mu yóbbaale mbooloo mi yëpp laay maxtaar euh, di sant bu baax mm-hmm, mm-hmm. di la ñaanal yàlla na la yàlla dëgëral amin barke ci barke Baay Laay mu baax amin amin amin macha allah sëñ libaas euh, nuyoo bi am solo lool te matale ndeysaan mu mel ni bu yàlla dogalee mm, sa matt ci kër baylaay di yëkkati turu yàlla te it ma seddu ne maanaam daanaka li ci ëpp solo te ëpp ci doole tur yàlla la mooy laataa ñoo julli dañuy kar laataa laataa lu ci ëpp daal kar la yow mu doon sa mat loolu tey ana lan nga ciy wax waaw sant yàlla bu baax euh, di wax ne loolu Seydina Limaamu moo nu ci nàmpal ndax bu ñuy jël sa waajur muy dugg néegu sëyam loolu lañ koy yóbboo ndeysaan yàlla dogal nga sosu ci mm-hmm. oustaz mu ngi ci waxtaan léegi mm-hmm. bo ci sosoo bes biñ la wara a tudd mag ñi wër la tudd yalla ci bir tudd yalla biñu ñuy tudd yàlla imaam ngi lay mu ngi lay tudd kon lolu bo ci màggee surtout man comme li nga ma poser question sama wajur li nekkon liggéeyam mën na ni tudd yalla liggéey loolu mo nekkon liggéeyam ci nga xamni jamono yi nga xamni Serigne Ablaye mo ngi nekk nga xam sama waajur bokkoon na ci ñi nga xam ni mhm. ñu ko daan dar la ci tudd yàlla gi mm, kon loolu mën nañ ni ndono la mhm. waaye du xam-xam du mën-mën wax dëgg yàlla ndono la rek mhm. sañu ñu ko bañ dafa mel ni da nga anticiper sama deuxième question ndax dama la doon waaj a laaj eh, maanaam ndax tudd yàlla da ko kii ci daayira yi nii rek mm. wala da nga koo donn wala yu demee noonu waaye mel ni ne euh, maanaam li may faral di wax rek mm. lim mbër ma sañ a wax mm. ne làmminu euh, ne ne ne xaalisu làmb lañ ma njéntee yow moom sañ ngaa wax ne euh, maanaam ci tudd yàlla nga judd ci lañ la njénte ci lañ la def lépp waaye mel ni ne it seetlu naa ne ba ci waa kër bàyyi laay yi même bu ñuy gunge néew laa ilaaha illallah la ñuy yëkkati eh, te loolu tawféex la di ñaan rek suñu borom gën a defar lépp rek mu mel ni imam Euh, xam naa ju ubbi jotaay bi ci euh, wax na rek euh, maam Limaamu Laay mi ngi gën a jamono en mille neuf en mille deux cent soixante et un ci date de l'hégire mooy ci dati gàddaay bi waaye boo ko jëlee ci ati tubaab wax nañ ne mille huit cent quarante cinq la ñii ne mille huit waaye xam nga xam naa yooyu yëpp di nga ko mën a teqat yi mën koo leeral euh, leneen li ci topp nag mooy euh, mi ngi génn jamono 1909 ci li ñu wax waaye dund 66 ans 66 ans boo ko mëngalee ci li muy tolloog ci turu yàlla yi mooy allahu loolu it di am xëy na lu muy symboliser waaye li nga xam ne nag mooy lépp te yëngal jamono muy appel bi dafa mel ni ba mu amee ñeent fukki at la ko woote muy 1883 ki ko njëkk wutu di Seydina Issa waaye ak nañ toppante ba tey jii euh, maanaam euh, Seydina Mouhamadou Makhtar Laay yàlla na fi yàgg loolu te tey bu ma waxee loolu ubbee yow ana lan nga ciy sof pour mu gën a mat. mbër mu ra mbër mu rëy ma làq woon ca xuntuma boobu ba léegi mu yàgg lool. Mm-hmm. mu rëy ma làq woon ca xuntu ngor ma waay ndekete booba leeri neen la woon ku weddi mbër mu rëy ma làq woon ca ngor ma waay ma làq woon ca xuntu ndekete booba leri neen la woon ku weddi mbër mu rëy ma làq woon ca xuntu ndekete booba leri neen la woon ku weddi am solo di ci profiter ci lii nga xam ne mooy mawludu nabi mm-hmm. mu bëri ay contestation yu ci am mm-hmm. waaye li ci yéeme mooy jullit ñooy contesté ndeysaan ñi bëgg ko yóbbu ci bidaa mm-hmm. ni kullu bidaa dalal wa kullu dalal ñu ne fi naar rafetoon na nag ñu yéeneen sunu biir jàmm te bàyyi ki moom safara ak ñam fay dugal di yàlla mm-hmm. subhanahu wa taala mm-hmm. waaye bidaa maana yaa ni mm-hmm. ñoom dañoo am xol bu tàng di wax ñoo am xol bu tal di wax dañ ni bidaa mooy lu ñu sos waa mën nañ sos lu baax ki ñu war a wax kay li mu sos safara la ki mooy ki sof lu bon ku sof fekk lu bon nga sof ca lu gën a bon la bon loola waaye lii dañ ko tuddee fàttaliku ngën gi mbindéef sallallahu moo tax dañ ni altine la judd kañ ñu ne fajar ca dimanche ca fajar bësal di altine ci la Aminatu am doom ja muy cadeau bu yàlla jox mondu islam waaye cadeau bu yàlla jox aalam mhm. bu ñu nee mooy fu jamono yem mhm. seen cadeau mooy Mouhamed tur wi dafa joxoon jëmm waaye ci kaw œuvre bi muy œuvre ci kaw suuf ci lay wuyoo Mouhamed yàlla may na ko loolu waaye œuvre bu nekk ak gaat bu nekk ak na muy wuyoo ñaari gaat loo xam ne la ko yàlla tappal yoo xam ne kenn mënu ko cee raw lu roy ko ci comme ñu ngi ci gàmm kan li ñuy gàmmul lu waral gàmmu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam mooy imaamu kulli imaam ci lu baax waaye képp ku baax ñu woone kii kat ku jub la waaye jub googu mënta baax lu dul dafa tombeek jubug muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax gisal ko article indi alif ak laam bootal ko ko muy almahdiyu almahdi di ku xam nag ndax maarifa lay doon waaw jub gi kan la waay ñu ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu lay amee tur mhm. waaye mahdi yu kese lay doon ci biir loolu mu am ku xam-xam-xam te xamul dara mhm. ki am xam-xam mooy ki wax loo xam ne du dëgg te mu ci xaw la yanoog maanaa mhm. ngir dafa jële ci source boo xam ne wérul mu ngi wax xam-xam waaye amul xam-xam ndax xam-xamu jàmbur la utiliser moo takk ku ub source da ngay dem ci ko xam mu xamal la Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu mi waral coow li ci coow li la bokk ginnaaw yàlla yonentaam sëñ Tuubaa ci coow li la bokk fekk àdd bu tukkiwul turam du fay dëgg la mënoo ko jiiñ lenn dul julit dafa bind alxuraanu karim wax alxuraanu karim jëfe alxuraanu karim kon ku koy adressé leneen du loolu rek yow yaa war a xool yow yaay kan waaye du moom alxayru laa fi nufusukum taxtaaru loolu de mu ngi ciy gisaawu sakkoor ñu ne ko lan moo tax alxayr munu nekk ci ay bakkan mu ne xat jaakum min allahi nuur kon su amee ku koy diingat man ba ma déggee ñu wax ci moom laa ne nun préparé nun laa ci ñun lañ jëm de ndax bay lay mu rasul lay te wax nañ ci xaadim mooy buntu ba mhm. dafa benn saay-saay boo xam ne aw moon occasion ca Lamp Fall démb mais tey am naa occasion mhm. wax ji nag ma koy waxal umma islaam mooy Seydina Limaamu da nga dégg waykat bi léegi nii mbër mu rëy ma làqu woon ca xuntu mooma mhm. ban xuntu làkku na xumtu xumtu démb ba muy dem mitin waaw ba mu jógee mitin làkkuwaat na ci xuntu muy ngor muy ngor kon borom ñaari xuntu mi su amee ku ne Mouhamadou Thiaw la tudd bu ci jubloon defar dañu déglu ko waaye daf ci jubal dingat ni waa jaa ngi France ñu koy wax Akhenaton Mahmoudou chaw momu ñu ko tuddé xamé ba ma ci ouromadiou ndax néna mam Alassane da dañ jël ay xéer di jaay ci ay luma ba dem ouromadiou dal di jël turu Seydina mamou tuddé ko kok ñu bari gëm nañ limu wax ndax mom ngi dingat rek di dem waaye nyukoi ñu koy dimbali di dimbali nga déggon lu mu wax limu wax ak li am du ben mag dañ ni min muqbirin tukkee na ci l'informateur xaala wax na fii kum yéen ñu jóge tànt tànk di person personnes waalidul karami ko kay wax ju jeex la wajur ku tedd ki daal dina yéen ñu jóge tànk ñëw fii ci uramadu yu fekk si ma man mii di amee ba war a taal jihaat pour xeex yéen ñu jóge tànk delloo leen diine moon di fekk am na ci yéen kenn koo xam ne war moo war a jur ki gën a kawe ñëpp ki gën tedd ñëpp waalidul karam yi kenn ci yéen boobu maam Alassane ma nga ci maam Alassane moomu du woon Tidiane xaadir la kon su ne Seydina Limaamu Tidiane la baayam dafa jëloon wirde ci amee ba ñëw jox Limaamu ab wirde heureusement baayam sax nekkul woon Tidiane jamono yooyu xaadir la woon kon waxam day puus naafeq buy wax dañ koy dogaale bàyyi Seydina Limaamu alayhi salaam xaadir la woon maam Alassane nekkul woon jaaykat. dafa demoon jihaat moo tax ñu ne ku jur imaamul mahdiw xasan lay tudd waaye al askari hadis yee ko wax day takku geteru yore fetal mbaa yore gaasi jëm xare kar loolu xew maam Alassane takku dem uromadi ñu ne kii yéen ci njëkk yéen ñu jóge tànk dellu leen diini moo leen di fekki kenn ci yéen moo jur ku tedd ki imaamul mahdiw ñu ne ko mooy kan mu ne imaamu man yaati képp ku judd rek kooku sa imaam xanaa wax jeex na bu juddu de boo mooy sa imaam ñii ne Umar Fuutiyu Taal la dañ ne xaala al Fuutiyu xaala wax na ka dëkk Fuuta mën naa dëkk Fuuta mu Umar man nga dugg Fuuta dugg fa Umar waaye Romadio la mbir mi xewee maam Alsaan nekkoon commerçant benn mbaa ji wax na loolu waaye bàyyam ba mu dellu see sa mahoo tuddee na ko bay ba kan la tuddee imaamu limaamu min xawmihi ca mbokk ya fa sax tuddee ko sax ke nek maat faf ma bëggoon laay ni déconcentré wu ci wax jooju xam ab saay-saay bu bon mooy wax li jaaxal nag te bu wax ko yonente bu mas a feeñ borom xam xeñ ya koy weddi ya ca xam-xam duñ doon doomu kuñ takk seen yaay ki sëy ku baax loolu tax mu dangereux ñu weddi yonente ñëpp judduwuñ ki sëy bu baax te bàyyi laay mooy Muhammad sallallahu alayhi wa kon yoolu mbër moomu ñuy wax ca xuntuma jékku jékk rek woote dafa xaar ba yàlla jox ko ndigal mu ne j'ai reçu l'ordre de transmis dama am ndigalu jottale et je ne vous transmis que ce que Dieu m'a ordonné de transmis kullu ma amaltukum min indi rabbi gidul rek woote de dafa am app bu mu toog wax nga ko sànq dinaa ci ñëw waaye pour ñu delloo si xel yi dalal xel yi xam ne ñun nit ku ñuul suñu cër du dara dul jaamu yàlla bu nu jaamul yàlla perte mooy ñu jaamu yàlla yàlla jox nañ ko am nañ ay njiit yu baax kon nañu tënku ci charia waaye nañ tënku ci islaam xam nga Égypte ci Afrique la bokk Mamadou Rasulullaay africain la ma sa doon لا يكون هناك حجر صحن امام ابراهيم ميغي جوغي دك بو نان ايجيبت ايجيبت فان لا بوك دو افريك افريك واو دال دي جوغي ايجيبت ديم سي مكه فلا امي اسماعيل اسماعيل سي تان ساكريفيس ابراهيم باي في اسماعيل لا تيالا لا جاي ديم با عبد الله جودو ساكريفيس تخاو sacrifice taxaw. ñaari sacrifice. addunay dem di dem di dem di dem ba Isaa feeñ. sacrifice taxawaat. mu ñaata. ñetti sacrifice. ñu ne ba mu yàgg am ku feeñ ni mooy Muhammad ñu ne luy lii ñu ne Isaa waxoon ne min baadi rasulun ismuhu yaati rasulun yaati ismuhu Ahmad mu fëgg dërëm ni man la Isaa doon wax. Muhammad Muhammad alayhi salaatu wasalaam doxal màkk 40 ans yàlla ni ko nag dama la nga woote al askar muharrabin léegi nag wa ma ila kaafatan linas deuxième ordre bi mooy bul yombat ci kër yi di woote waaye génnal fés ila kaafatan linas fu ne daa fa taxaw ne yaa maa la yónni tax Sénégal jot ci ila kaafatan li naasi basira wa nazira basira makka nazira fii la waaye su boobaa yàlla ne lu ëpp ci li nga dul la xam donte gëm nañ la ci kumpa walakin aksara naas laa yaalamuun looloo ñu dal nan la fi ñëwee nag ba tey ñu jot ci loolu yàlla moo ko programmé mag ñi demoon nañ Égypte am lu xew mag ñu jógewaat dañ Égypte di ay lébu

mangi ñew di dox di dox di dox ba Grand Yoff ñu gu mag moy fi amitié nekk tay tudul Grand Yoff bobu de suis tudul mu que mag ñi campé tok fa suis 1442 xam nga suis firi moy notel mag ñi ñu ko leen nor ñuy bi fa ba ba 48 am feebar bu leen dugg muy feebaru nelawaan ñu commencé faatu ñu nekkoon nañ jege ji géej mën a fajuwaale ca ndox ma diggante boobu ñu fa am ñu toxu dem géej la yoof gi am waaye amitié fi mu nekkoon foofu moo nekkoon yoof gu jëkk ga di mu xeex bañ demee yoofu géej nag tafu ca ndox ma diggante boobu yëpp leeru rasulullah jógee na Medine duggoon na ngor ca xuntuma amul ñett fan ci bàmmeelam Abdou Moutalib ne ni gis naa leer gi génn ci bàmmeel bi dem penku dellu siwaat dugg ci pax mi jéeg dem ci asamaan si delluwaat ci pax mi ma gis leer gi génnaat dellu dugg ci biir pax mi jëm saw jant ma koy xaar ba léegi leer gi dellu siwaatul ci pax mi looloo indi mbër ma ma làq woon ci xuntu mooma ndekete booba leeri nen la woon Euh, macha allah imam euh, li nga historique bii nga tracé nii day lu am solo loo xam ne maanaam mën naa wax sax ne nopp dalootu na ndax yaakaar naa maanaam néew na ku mën a leeral lii nga leeral tey jii. Mhm. waaye ala kulli xaal euh, man sama wax bopp laay wax. Mhm. man murit laa sëñ Tuubaa laa gëm. Mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall Babil Mouridine laay jéem a roy. macha allah waaye sunu borom. maanaam ku koy tëlaleew dara rek. yaa xañ cëram moom. bu dëkkay suñu borom lu ko neex lay def. bu dëkkay te nu mu ko neexee noonu la koy defee. fu mu ko neexee. mu mel ni kon euh, tey sunu maam Limaamu Laay. salaam. ñun ñëpp ñu nangul ko cërëm. ba noppit yàlla dogal maa ngi koy wax sànq. Sénégal moom kenn. moo fi réussir. ñëpp yi wuyoo laay. muy maam Limaamu Laay loolu yàlla. alayhi salaam te loolu cëru yàlla la. bu waaye man fi mu bëgg dëgg-dëgg nga indi ma. mooy tey maam Limaamu Laay du ne rapport am ak yonent bi. waaye niñ ko mën a méngaleeg yonent bi. ci laa ba gars yi gën a xamaat mooy kan. Bouddha. alhamdulilah. fi ma jaar léegi. Mhm. mbër mu réew moomu làq woon ca xuntuma. Mhm. nga ne ma lu mu doon lekk lu mu doon nan man la dafa nekkoon ci ay ijab. c'est une question. Mhm. ne mu nekkoon ci ijab yi démb. la dellusiwaat ci ijab loolu mooy lan. ma ngi nen naa Seydina Limaamu nee na. bi ma ñëwee Ngor guddi gu jot danga wër àdduna bi fanaan waat fu muy jaar leer la. soxlawul lekk soxlawul naan. dëgg la. kullu laylin mu ne mun addurru dunya nee na France waat ci xuntu bi di xaar. kooku di Seydina Limaamu alayhi salaam. ne fa def ijaab bi ba mu mat. yàlla rek ne ko génnal nag. dama la yoon ci xeet yoo xam ne mos ñu dégg yonent amuñu yonent. bilaay. te xeet woo xam ne maa yadrus dunu eh, maa taati min kutubin yadrusunaha ñoom amuñu téere bu ñu jàngee ndax ay lettre lañu. Mhm. alxuraan lii la wax. Mhm. naa la yónni ci xeet woo xam ne. Mhm. amuñu lettre bu ñuy jàngee. ay ummi yu la ñuy doon. yàlla dogal ci man-manam Seydina Limaamu mu génn jaar ci ndox mi dem yoof daal di tëb diggante ñaari géej yi ñu waxoon ni. maragal baxrayni yantaqiyaani baynahuma barzaxun lu lu wal marjaan mhm. boo demee ba ngor mhm. ñaari géej gi dañuy dóorante waaye duñ jàllante dëgg la diggante boobu di baare nag mhm. dañ ne dañ fa génne wurus ak xaalis alasaan ak seyni wurus ak xaalis la alasaan ak seyni cey bàyyi ak isaa wurus ak xaalis la la wurus woowu génneel bàyyi taxaw daan xanaa gis leen taaxam wurus mi xanaa gis leen taaxam xaalis mi muy kàmbe nag yoof sëy na leen moom fenk doomu aadama nag tànn moom la yàlla may mu tànn ndey ak bàyyi muy kumba ak abdallah ak abdallah nga ne ma déet Alassane la tudd de ma ne waaw Alassane mooy turu jëf ci mais abdallah yi turu mu def yëpp la ñu dëgg la képp ku yàlla bind moom donte loo ma doon rek abdallah yi nga jaamu yàlla nga mm-hmm. waaye Alassane mooy ku yàlla gërëm mm-hmm. ci lu rafet kumba mooy jigéen ju liggéeyal yàlla bañ ne ko aminatu jigéen ju nu wóolu mhm. bu dee góor ñu ne lamin mhm. loolu waaw kumba waay mhm. foofu la ba mu feeñee lan la wax daf ne yàlla ma yónni ñu ne ko yow ken mu ne mamadou naama way xasa mamadou Mamadou Naama way xasa Mamadou. Mamadou Naama way xasa Mamadou. Mamadou Naama laay. Mamadou Naama way xasa Mamadou. xam nga lu mu jàpp. mooy ñi doon nelaw ci feebaru nelawaan boobu di dégg la yeewaat ndax bu ñu demee àllaaxira dégguñu aaju boo jaay la am lay. waaw foog ñu yee la ñu yeewu dégg ajibu daay lay moo tax mag ñi daan wax naan su àllaaxira amee jàmm kumbaa demul ndax kumba su demul limaamu du woote may wax borom xam-xam yi ay bi tax gaa yi fatu yàlla moo ne ko wax xada rabbuka ala taabudu ila iyaahu man yàlla jël naa décret yàlla dafa atte suñu ñu war ko jaamu mu dugal ci Muhammad mu war kaa jaamu moo tax Mouhamadou mooy dañoo dogal ci moom jaamu yàlla gudul gudul gudul sax ku sax ñun dañoo atte si war a jaamu yàlla moo tax ñuy atte ëllëg wax xada décret la yàlla jël bul jaamu kenn yow mu Mouhamad dogal naa loolu kudul man waaye sa yaay ak sa baay waaw sa yaay sa baay fii la gars yi tagee nag pour indil la mooma moo ma tey lii su amul ak yàlla matul yàlla te yàlla mooy yàlla wa xada rabbuka ala taabudu ila iyahu wa bi walidayni ihsana sa yaari waajur na nga rafetal dem ci ñoom ahaduhuma aw kilahuma wala taquluma uffin ku la ci yónni na nga dem yàlla xas na wax ku ci yónni na nga dem kon fokk yaay Muhammadu Rasulullaay ak baay Muhammadu Rasulullaay yónni Muhammadu Rasulullaay yàlla wax na ba pare lu mu wax day am su yàlla waxee te amul matul te yàlla nee na ko Muhammad sa baay ak sa yaay daana la yónni su la yónni bul bul gàttu de te yéen xam ngeen ne Abdoulaye dee na te Mouhamad door a juddu nu koy yónnee. ah loolu équation la. <laughs> dafa nànk ci alxuraanu karim. <laughs> Amina mi ngi nii nampalu ko sax ba di ko <laughs> yónni. juróom-ñaari at mu dem. te yàlla nee na ko sa baay sa yaay daañu la yónni. su la yónnee bul gàntu. wala taxul ma uffin. wa maa yablughanna indakal kibar alxuraan laay wax. sa yaay ak sa baay daañu ànd yow ba di mag. te Abdoulaye dee na fekke wu ko Amina dem na sept ans waaw yàlla wax xanaa kon yàlla dafa juum. laa ilaaha illallah. Mhm. lii ma waral mu dellu si waat baay ji war kaa yónni. Mhm. fii la ko baay bi yónnee yoof mhm. jël gaas jox na demal taxani. baay bee gën a xam kii mooy kan ndax waxoon na ci uramaat yu ni ko. waajul karami yaay gën ngën gi tedd mbindeef yaa koy jël yaa jur xam na ko te laaj na waaji de am mais pas ni ko noo xamee ne maa jur kooku mu ni ko maa ngi dégg sa biir ndigg mhm. ab sikar suy sikar mhm. ala ala allahu rabbana lay ala allahu allahu hasbuna ala ala allahu rabbana لا إله إلا لا واسمنا لا إله لا لا إله ربنا لا لا إله إلا الله لا واسمنا لا إله لا لا لا ربنا لا لا إله إلا الله لا واسمنا góor gaa ngi dégg ndig laa ngi sab baat bi allahu yàlla rabbuna waaw ca uramaat yu soxlul gàllaaj soxlul dara allahu yàlla rabbuna mooy ku ñuy sécuriser allahu yàlla xasbuna ci moom la ñuy wékk suñu lépp leer gi loolu lay sikar moom la doon sikar it fii ca xuntuma leer gi loolu lay sikar yàlla dogal na loolu am baay ji dégg loolu xam loolu pare di yónni Seydina Limaamu na ko demal taxani ma mënu ko bañ yónni de parce que yàlla wax na ko par ci alxuraan karim scénario bi daw na yàlla neen ko dan du yónni Seydina Limaamu jël jaasi ja dem ca àll ba dellu siwaat indiwul benn mat bàyyi gi ne ko ana mat yi mun ko garab gu ma xàcc dama bay dagg nga ne ma lamaana lamaana أنت لمانا لمانا أنت سيد الأولين والآخرين ينين فينا لمانا لمانا أنت سيد الأولين والآخرين ينين فينا لمانا لمانا أنت سيد الأولين والآخرين ينين فينا feeñ na amaana amaana limaamu la anta sidi awwalin wal aaxiriin yeneen feeñ na ana limaamu ladi qad kaana muntadiran laysa alwaliyu ولا قبل ذي الكرم أمانة أمانة أنت سيد الأولين والآخرين ينين فينا مام لمام لا أنت سيد الأولين والآخرين ينين فينا قرب يعني سجود نكو نكو يولا كيالا وخون دمبني bu la sa yaay yónnee ak sa baay wala taqulu ma uffin anta sayyidil awwalin loolu màkk xew woon yaakaar yàlla ko yàlla waxoon wa sayyidil aaxirina yaa feeñ tey sa baay yónni la daal di raam mu am kees say dagg leen nag daal di delloo si loxoy neen baa ji xam ne waajaa ngi li ma doon wax mooy ki ñu ko doon wax waaw alxuraanu karim moo ko wax nekk sa baay dana la yónni ndeke boobu ci ñaareelu wàcc waayam lay doon mm-hmm. te pourtant yàgg na wax alhadis ni izana da alhadidu bolen demee ba weñ di wax muy lii ma téye tey ak fi ñu ko téye wa xarabal baidu tey jii télévision bi bu subaa bu ñu ko tegee fu waay tool ci àdduna bi di nga ko gis mu mel ni ko kon lu sore woon dafay jege mu ne su boobaa nag jaawal sum na ngeen weesu woon weesu ngeen sama jamonoy woote ba su boobaa su boobaa demee ba ñu wax la sore woon daal di jegeñ xam leen ne sama woote ba weesu na woote boobu ngay laaj woote bi Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa mi ngi ko wootee ci ñeent fukki at bul fàtte ni maam Adama alayhi salaam yàlla tën na ko wékk ko 40 ans mu nekk ban ak suuf kese mu mat 40 ans yàlla sotti ci moom ruuxu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu njàngale bu rëy la bu Seydina mu jàngale fii maa ngi ciy invité waa scientifique li tax yàlla wax Muhammad waxal gaay ni soo wootee donte fa nga wootee montagne galaas la na jullit ñi raam fekk la ca kaw ku ci dee dem àjjana màkk li muy nekk fàtt yàlla waxul loolu de dafa ne bu imaamul mahdi wootee law kaane ala salji la xabwan na ngeen raam dem fekke ko fa lan moo waral boobu importance kon woote bi am na leneen lu ne ci biir lu jar a xam waaye na nadaxa alxadidu wa garaba albaidu jaawastum zaman almahdiyu weesu nañu oote ba ba tax na tey télévision yaa ngi tàkk ci senegal ci Ndakaaraw rajo yaa ngi wax kon lan lañu ñu war a génnee wàccoo ngeen seen borom yéen ñi wax ci waxi Maadiw tey ndax lii la waxoon yal na yàlla dooleel ndax yéen ngi wax ci ka woote te waxoon laata lii di am di weñ laata télévision di am mu ne bu weñu waxee la sori woon jege sama yo sama woote ba weesu ngeen ko. macha allah macha allah xadis la woon eh, xam naa dinañ dellusiwaat ci yow léegi. bismillah eh, ndax dafa mel ni waxtu wi dañuy ñett. Mm-hmm. te dama bëgg am question yu ma posé eh, maanaam maam libaas rek mm-hmm. ci wàllu njàng mi. ñu wat nga am lo leral daal di tàggu ñu daal di ñaan ndax waxtu yi une heure temps rek la te dafa melni liñ fi jotta développer mom doyna seuk seuk seuk man sama xol bi sedd na ba mom daal lepp ngi bax wax dëgg yalla lepp ngi bax euh mais seigne libas euh, euh machallah ci talent bi alhamdullah ndax itamit tamit euh, min nañ ci wa keur sayidina limam lay manam meuna jang lol waye nak wuy ji len ngiin sa wote ba lol mom mom la ñaané mom mom man loolu da am may def ndax dafa dafa dafa waaw moom daal waaye euh, dama seetlu ne ñun suñu mbokki jàngkat yi maanaam dese nañoo bàyyi xel loolu ñuy wax formalisation maanaam tey xam ne dañoo bokk ci ministère de la culture am carte SODAV war a préparer dem ay voyage ndax ay relais de communication lañ ay ambassadeur lañ ndax lii maam li maamu laay woote ca Yoff tey jàpp naa ne yaa ko war a yóbbu Angleterre wala yaa ko war a yóbbu wala yaa ko war a yóbbu tey taxawaay boobu maanaam foo ci toll. waaw santaat yàlla bu baax a baax a baax julli ci bàyyi la alayhi salaam di jaajëfal oustaz macha allah yal na la yàlla taxaw waaw loolu mhm. bokk nañ ci organisation bi mhm. ñu ngi ci mhm. waaye man moom pour wax la dëgg rek man moom damaa mën a waaj donte bokk naa ci waaye am na yoo xam ne manqué na ma ci këyit yi ma war a fournir pour nangam ndax dama damay liggéey liggéey entreprise maanaam defuma ko priorité lool mhm, mhm. moo tax ma tardé ci Euh, ci wàllum këyit yooyu. Mhm, mhm. mais nag mhm. maa ngi ci am ñu ma ciy waxtaanal bañ teg ma ci yoon yu ma ci war a jaar. wax dëgg fa yàlla. ndax am nga ay bés yooyu def ay Sorano ay grand théâtre ay yooyu wala yow jànkatu baas rek nga. Euh, waaw loolu moom wax dëgg yàlla <laughs> doxaguñ ci. mais nag am nañ ku ñuy àndal koo xam ni. day yëngu ci loolu. mooy mambay mi ma la doon expliqué léegi. dëgg la wér moom programme am yu bëri ñoo ciy ànd wax dëgg yàlla. mu cëral ñu ci boppam heure bu xewlee. dañuy ànd ak moom ci bés yu mel noonu. mais jëmaguñ ci loolu quoi. ndeysaan ah. euh, macha allah question yi bari na lool. Mm-hmm. waaye nag waxtu moo ñu njatt. Mm-hmm. Euh, ñu di ko jéggulu mbokki taalibe bi xam naa ne kenn doyalul euh, mu mel ni ñoo ngi siyaar bu baax sunu xarit sunu soppe sëñ Bolle Laay Nduur nga xam ne yàlla dogal na eh, xëy na jotaay bu demee nii maanaam moom moo ko coordonné mm-hmm. ñu bokkandoo association des jeunes pour la promotion des acteurs culturels religieux mu tënk bépp jàngkat ak bépp artiste boo xam ne da yëngu ci wàllu religion eh, xam naa eh, maanaam mu xaddam wax dëgg yàlla mu xaddam nga ndax maanaam mu xaddam mooy koo xam ne maanaam nee na ci yàlla ba am cërub ki ko joxoon la tax xëy na mu ne ci yàlla te loole noonu seet nañ ko ci ci xam-xam bi ci dayo bi ci taxawaay bi ak lépp euh, mu mel ni nag xëy na li des ci woote bi maam li maamu am na ñu àndoon nag ñuñ mën a wooyee ay champs bi maanaam ay samba euh, ku ci mel ni euh, Cheikh Makhtar Lo mu siw lool ci yenn way ak yeneen ci aju xuntuma waroon nañ cee wax ak yeneen ci aju yëpp waaye maam li moo xajul ci benn jotaay. ñu bëgg nag maanaam nga tënk. daal di maanaam tàggoowaale Euh, bu ko defee ñu demaat ci jëwrin daal di ñaan di jéggul mbokk taalibe yi nag ndax buñ sañoon xëy na mu gën a yaatu waaye nag euh, maanaam euh, ni ñu tënkee émission bi dafa am yeneen mbokk taalibe yoo xam ne ñoom it dañoo war a ñëw war cee jël seen wàll kon loolu an la lay doon waaw a mooma démb a tey soo wootee boo bindee Mouhamad Ros Mouhamad kese sallallahu alayhi wa sallam la moom lañ toog démb ci xilaafa moom lañ toog fii tamit ci xilaafa muy kenn ki de mbobo xolé abou bakkar moko remplacer deux ans la tok omar fukiat 10 ans ousmane 12 ans ali 5 ans so bolé lo mu nek lan 29 29 boko jowale lu jox 92 nga delu ci fi fek sey nay tok 40 ans Seyna, na 22 ans Seyna, nay tok 16 ans mam alsan tok 14 ans soko bolé muy 92 moo a démb moo ma tey xilaafa yi ñeent lañ mos a doon ngi ci dañu assurer les intérims diine mm-hmm. mm-hmm. waaye fi may tëjee mooy mm-hmm. bàyyi laay 40 ans la woote seen ay saa remplacé ko 40 ans Adama 40 ans la am yàlla sotti ruu Muhammad sallallahu daw téeméer at ba di ne xëpp xool mu dox téeméer at mu tisooli xool aras gis ñu laa ilaha illallah dal lu koy wëralee bisimillahi rahmaani rahim leer gaa daw bëñ ñi daal di sàcc wàcc mu xippi xippal xàmmee loolu la war tey 40 ans la ñu wootee ndax leer gaa dugg 40 seen naa li maamu ñu foofu ne sama waa kër képp ku ci sangatu set maanaam sangu janaaba na nga tëj fi leer gi jaaloon parce que leer googu nga xam ne moo jaar ci Ibrahima ah maam Adama ci fii lañ ko jaarale ci nampatal bi. xam naa waxtu wi bu xasee ba tëju ci gone. bu dugg ci gone. gone gi moom lay noyyee ba am deux mois dooratu siol yi pour mën a noyyee noyyu àdduna bi. Hmm, waaye booy sëy yow nit. Hmm. day tijjeeku. Hmm. ndax li met gi war a jaar sos xale. yaa ko war a delloo nag. baas bopp di metti moom la limaam ni kon bu koy tëj yow laayeen bi. na nga ne bisimilahi rahmaani rahim. ci ndox mi. alhamdulilah bi alamin laa ilaaha illa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ëpp ko sa nampatal daal di sa bopp. ma ngi lay delloo ci Adama waaw soo ko defee sa bopp metti mm-hmm. loolu ci njàngale la boo xam ne fan la ko jëlee ci xam ne jàngaloo binduloo mm-hmm. ñun ñëpp ku ñu julli bu ñu doon suñu ki suuf ne allahu bar mm-hmm. leer googu mooy kiliñet fii dem ci kaaba gi directement bâtiment mun kaa tardé day dem moo tax ñu bëgg nga jublu xibla bi sa diggante kaaba gi parce que lumière bi ne ci biir di leeru Muhammad dafa faral dem ci kaaba gi directement loolu mi ngi ci sangu set Seydina Limaamu bi mu ñu jàngalee sangu set boobu nga xam ne moom la ñu sang ku deen ku génn àdduna balaa ñu laa denc ci biir bàmmeel sangu set ba nga doon sangoo dañuy benn sangee la ko ma la joxaat sa borom yaa ngi dugg sànq ki sikar si bu ñuy julli bu ñuy sikar ak bu ñu yóbbu néew bi bu ñuy sikar ñaari sikar yu bokkul la ndeysaan sikar su jëkk si julli ji rasulullaay mooy sa imaam moo tax loolu nga teex nga dégg ne Seydina rasulullaay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 إله لا إله إله ki tëdd kan la mooy ki noonu aman na waxtu bi rek ñu jaaxal waaye fi mu toll <laughs> <laughs> Euh, ndax ki ne ci réseau bi boobu léegi mi ngi may kii waaye xam nga dafa am foo xam ne bu fa waxtaan tollo doo ko mën a dagg waaye di jéggaluwaat mbokki taalibe yëpp rek euh, xam naa nga tàggoo rek euh, balaa nodd gi di jëf incha ah, allah bismillahi rahmaani rahim mm-hmm. mm-hmm. di nuyu waat umma islam di nuyu xalif général murit mm-hmm. comme ni ñu ko ñaan leew sànq yàlla yokk ko tawféex amiin barke Seex Xaadim jëwriñ bi nekk fii Dakar tamit sëñ Mbacke Faye yàlla doole ko dooley baatin taxawal ko suturaal ko liggéeyam rafet na waaye di ñaanal sunu xalifa Seydina Doudou Makhtar Laye mhm. ak jëwriñam ci gannaaw moom la jiite leen mhm. di ñaanal mbokk seen alimaam di ñaanal libaas yàlla taxaw ko moo tamit amiin amiin yow tamit yàlla daaral la jàppale la suturaal la yaatu gi ak tawféex gi feeñ na ci say waxtaan di wax ni neex ma xaal mm-hmm. najaakumulaa hadaakumulaa mm-hmm, afaakumulaa inna laa kaana bi mu dafuraay ma waa ko daawaana mm-hmm. alhamdulilah bi alamina eh, bu nu téeméeri paatu du doy dëgg la wér na ndeysaan eh, jërëjëf eh, Muxaddam Mandiaye Thiawlaay ndeysaan di la kontaane waat bu baax waaye di kontaane waat bu baax ndeysaan euh, Serigne Abdoulaye Samb euh, waaye ndeysaan euh, Serigne Fat Ndiaye Mbaye di ko bégewaat bu baax a baax maam libaas nga tàggoog mbokki taalibe yi daal di yëkkati wuy gi leen ngiin sa woote ba bu defee ñu may ko axlu laayeen yëpp waaye may ko jullit ñëpp bu ko defee ñu daal di koy tëjee jotaay bi wuy suna woolu tey dëggal woote bàyyi lay ca saw baay topp mboolem sëtëm ya ndax ndeg ma jën loog li maamu laa di leen ñiin ca woote ba li matal farata yaa mu kumba doy maytul mu aaye ndax li ngërëm la ca limaam waay waay bismilaay déglu leen li maamu laay tu xam-xam la feelu laay moom ma maamu laay leen ca woote ba li matal farata mu kumbandooy maytul mu aaye ndax nu li ngërëm la ca maam libaas war na alburaan toogal rabul jëli yàlla yónni ko eh, maam libaas noon na saw bi penku ak fi eh, waay waay géeja baawan fa jàmmalaay ndox ma neex teenub jàmmalaay teenu zamzam ñamal nga seet Mustafa tëdd fa jàmmalaay njin ca woote baa luy matal farata maamu kumba ndoy maytul mu aaye ndax ñu am li ngërëm la ca limaamu waay waay abdoulaye caw abi balaay doomi bay seydi yaanu doy jaasil islam ji ay boroom foo taxaw leer ya jolli naa leen jin jawoote baa luy matal farata ak sunaam sax maytul mu aaye ndax ñoom li ngërëm la jali maamu la bi teral abdoulaye doomi isaar ngay beel illa ina abdoulaye na la buur bi teral abdoulaye doomi isaar غيبان إلينا آلا تعصيمه ينعتم على سوي التقدم